boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo mbokk mi nga xam ne mooy bind lu ko neex ci tànn ko ko neex gënal ko teg ko ci njub di saare ne amul benn buur bu dul moom di saare ne yonent bi ab jaamam la waaye moo ko yónni ci mboolem yonent yi ngi ñaan barke ak leer ak ngërëm sotti ko ci sunu yaakaar Seexul Xadim radiyallahu taala anhu ak njabootam ak mboolem taalibe yi ñaani ak yërmale ak njëgal ci mboolem way dawle yi tey ñaan yàlla <clears throat> yàggal ba sunu kilifa ji suñu xam Sëriñ Muntaxa ba du ko ñaanal mboolem kilifa yi julli mbokk yi ñu ngi di fàttali gën gannaaw bu ñu sunu gannaaw bu ñu fàttalee suñu bopp ñu góorgóorlu bu baax ci jaamu yàlla ak topp ay ndigalam ñu xam ne ñu ngi ci weeru mag ñu ci taret bu am solo muy weeru ramadan weer la boo xam ne yàlla da koo jagleel yoo xam ne amul ci weneen weer ay jëf yoo xam ne weeru koor képp la ko yàlla jagleel ci mboolem fukki weer ak ñaar ci ay ngëneel ñu xam ne weeru koor ponk la ci juróomi ponk islam benn la ci moom kenn sañu see dog lu da ngay tukki wala nga feebar ki nga xam ne day tukki te tukki metti ci moom wala mu wéradi sañ naa dog waaye lu mu dog dana ko fay lim bis di toll na yem dog ci weer waneen ndax yàlla moo wax Alxuraan ne faman shahida minkumu shahra falyasum wa man kaana mariidan aw alaa safarin fa iddatun min ayyaamin ukhra koo xam ne yaa ngi nga nag wér am kattan da koo war a woor waaye ku wér di baa nga tukki sañ ngaa dox boo wéree fay boo ñibbee fay suñu borom nag da na ki xam ne màggat na ba munta woorati wala ki wéré di wéré di ne goo xam ne du wér la sabar boo xam ne du wér mukk ñooñu suñu borom daganal na ci ñoom ñu ñu dox koo ne wóor nga ne mënatoo amatoo kattanu woor si wala sa bi ak kattanu koor kooku suñu borom dagal na nga nga waaye saa boo xëyee da am miskin yoo xam ne dana ko mën a dundal nga jox nit ab dund dund bisam loolu boo ko defee ci wàcc na la ko do koo dana la wàcc xam ne weeru koor daal mooy li nga xam ne yàlla muy kenn mu bañ koo wóor te ngante yooyu wala boo amee ngante yi tam la ci amoon da koy fay lu toll na bis yooyu bay fay boru boru weeru koor nag moom duulu ci farsa nga tegale nang fan ya boo amee juróom fan loo neexee nga war benn fan ñaari fan noppalu war waaye loolu ne na ko lee woon fa force da koy fayee noonu ngëneel yi nga xam ne weeru koor am na ko ca mais weer amu ko bokk na ca ci la sunu borom wàccee alxuraan sooru ramadaan allasi unzila fiihi alxuraan hudan linnaasi wa bayyinaatin minal hudaa wal furqaan weeru koor képp mooy weer yi nga xam ne ci la sunu borom wàccee alxuraan Ibn Abbas wax na ne yàlla dafa wàcce ci weeru ci laylatul qadr alxuraan jëpp ci baytil xissa fi samaay te asamaan si mën naa wàccee jëpp ci weer soog nag situation bu bu jot bu dikk mu jox ci lu tolloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ci weer la ko wàccee noonu ci guddi googu waaye nag yonent moom joxandoowuñ ko ko dañuy def farat fu mu toll rek te soxla woo la waaye jooju dikk wax moom ca loola ba alxuraan ji waaye nag ci weer yi ci la ko yàlla wàccee noonu ci baytu xissa alxuraan nga xam ne mooy gën a màgg ci ci yi suñu borom wàcce wàcce ko ci ki gën ci yonente yi ci weer bii la kon léegi am na ngëneel loolu alxuraan ji nga xam ne moo ñuy teg ci yoonu yoonu yiw duñu jëlee ci yoonu ay duñu teg ci yoonu boo xam ne moo ñuy jëmal ajjana waaye moo ñuy génn ci yoon yi nga xam ne moo ñuy yóbbu sawara kon jagle googu ci weeru koor la am kon nag na ngeen fonk baax bokk yi jàng ci weeru koor te di ko settantal di weer waaye di jàng ndax boo ko dee def kat da nga am ñaari tilu ramm ndax yoon bi saa wax na ne koor day ramm alxuraan di ramm bu yomal xiyaamee ñoom koor day wax sama bu bu bu bis pencee ne yàlla kat kii maa ko teew na lekk teekoo naan kon nag kin na ci alxuraan dikk ne yàlla kii kat guddi gi dawul nelaw di may jàng ak di nafila tin ma ci bu ko defee nga am ñaari tim ci lu alxuraan ak toog nag jàng alxuraan bi weeru am na solo yool bu baree baree gi ci nañ koy inna tilawata tilawata kitaabin munjii min dararin wa min hanaanin tunjii boo dee jàng alxuraan lore adduna yëpp ak coone adduna suñu borom dal la ci waxaat na kuy jàng bu bis penc bee sa kanam day leer doo tiit te da ngay jege suñu borom yab yabdu yowmal xafsi baadal xurbi waxaat ne ila sibal xayre yaful kadru kii jàngar xam moom ak tiitaange du ko wasi mukk te fu mu toll suñu borom da koy jox ay may sëñ Tuubaa waxaat ne képp koo xam yaa ngi jàng jàng Alxuraan na xam ne mucc nga ci ay lox ngor moom du la laaj du la laaj mukk liggéey mosuñu dem di ko ñaan lu boo dee jàngal sunu moom dana ci musal loole sëñ boo xam ne inna tilaawatal kitaab bi mul ku jàng alxuraan moom a nguur la boo xam ne ku koy jàng sunu borom moo kenn kenn dana la aar ba kenn du ak sew wa sutruhu maa ilayhi xat kenn du xot sa sutura waxaat na li xaari alxuraani xasil baaqi kii jàng alxuraan sunu borom moo koy musal ko ba noppi boyal ko kon nag jàng alxuraan ci weeru koor am na solo bokk na ci jagleel weeru koor ci la sunu borom def laylatul xadar laylatul xadar gi nga xam ne boo ko dundalee ci topp yàlla ak def lu baax mel na ne jaamoo nga yàlla juróom-ñett fukki ak ñett salaa sasan wa sama nina xaman boo jul guddi laylatul xadar nga def ci la la war lépp ci topp yàlla ak def lu baax day mel na def nga loola ci juróom-ñett fukk ak ñett ci jaamu yàlla ndax suñu suñu suñu borom dafa wax ne xayru min alfi shahrin guddi gi moo gën junniy weer te junniy weer boo ko am nag jagleel boo xam ne mooy suñu kenn fekk ko ci mooy loo ci def def ci baax suñu borom dafay ful boo julli gii ñuy julli ajjuma wala farata weeru koor da ngay am lu mel ne juróom-ñaar fukki julli yu toll noonu juróom-ñaar fukki julli ajuma boo jullee genn ajuma da nga ko ci am boo jullee genn fajar sax am juróom-ñaar julli yoo te loolu weeru képp moo xam boo ci neefelaay su neefere boobu day day taxaw taxaw yi nu farata boo neefelaay ci weeru koor daraja yi farata lay am loolu weeru koor rek moo xam weeru mooy weeru muñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ku munta muñ doo wor muñ ci topp yàlla muñ ci def lu yàlla tere xaaba lu yàlla tere yëpp nga def waaye muñ ci mettitu xiif ak mar yi yëpp nag kuy man da nga muñ ci dem di julli ji jaamu yàlla waaye da nga muñ ci suñu borom tere yëpp ba doo ko defati waaye nag métti yi teg mar yi xiif yeeg coono yëpp itam ko muñ kon loolu weer ko rek moo ko jagoo yàlla sunu borom nag dafa tagg muñkat yi wax ne inama yoo saabiroona ajruhum bi xeyri hisaab sunu borom ba ñuy muñ bu leen di fay moom amul natt da leen di jóoral rek kenn du leen teesal seenu yiw bokk a ci jagle yi weeru koor nga xam ne waaye weeru amu ko weeru koor képp la mooy li xam ne bu dikkee sunu borom day ubbi bunti àjjana yëpp waaye day tëj bunt sawara yëpp loolu nag weeru koor rek la ko yàlla defal bokk na ci jagleel weeru koor ba tey moom suñu weer yi bu dikkee suñu boom day seytaane ba fam toog fa mën a jug looloo tax weeru koor bu dikkee mooy yàlla yi dana wàññi ko ndax seytaane si ñu ci daa xiir suñu borom da koy jëng ba du jug fa mu moo tax jaamu yàlla ci weeru koor ci la gën a yombe loolu nag weeru koor képp la ko suñu borom jagleel bu dikkee moo tax jaamu yàlla dana yomb mooy yàlla yi xam dana wàññeeku ba wàññeeku bu baax bokke na ci jagleel weeri kor naafila tara salaatu tarawih naafila ñuy def ci juma weeru ko mbooloo di daje ci jumaa di naafila lu ñu weer kor kenn ko ku ne loolu weeru koor képp la ko sunu borom jagleel te yàlla wax na ne képp koo xam ne dem nga ci juma ànd ak imaam ja mu naafila ba egg eggal yàlla dalay fay nga taxaw guddi googu gépp képp koo xam ne dem nga jumaa a ànd ak imaam ci naafila ba ba naafila ba eggal da ngay mel ne ku fanaanee naafila guddi googa naafila nag sunnatun muakkad sunnatun saddir la ba marché sonk la dafa defee ci jàkka yi bu ko mën bokk na ci jagle yi nga xam ne weeru ko rek moo ko yàlla defal mooy dafa am ca àjjana bunt bu ñuy wax rayaan rayaan nag kur woor dafa du tudd yadxulu minhu az-zaa'imuna yawma al-qiyaamati waaye ku koor ku woor doo dugg te bis booba bu boobaa dañ ko taxaw te mu doon ko defee ñu dugg ku dul ñoom doo tàbbi ci buntu booba buntu rayaan kon loolu buntu dee rek mu tëj bunt ba loolu weeru koor rek la ko sunu borom dégleel abi umamata radiyallahu dafa wax ne damaa dikk ci yëpp sallallahu alayhi da wax ne ko dama bëgg nga digal ma jëf joo xam ne dana ma tàbbal àjjana yonent bi ne ko alayka bi siyaam fa innahu laa xadd lahu maa ngi lay dégg dégg nga ngay woor ndax amut lu mel ne moom kon koor am na solo bokk yi nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danoo ne ñeent yi koy fonk ci weeru koor ñeent jikko yi ñaari yi dañ ciy am ngërëmal suñu borom waaye ñaar itam mënuñu ko ñàkk ñaar yi nga xam ne bëgg nañu fonk ndax ci di wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah yooyu kon suñu borom ñaar yooyu bu koy ku ko fonk ci weeru koor da nga am ngërëmul suñu borom waaye ñaar yi nga xam koo ñàkk mooy ñaan tàbbi àjjana ak ñaan mucc ci kon nag dañ koy faral di ñaan ci weeru koor bii ñaan suñu borom dugal ñu àjjana yàlla na ci yàlla ñaan yàlla ci dugg sawara bokk yi weer wi képp koo xam ne romb na la nga nekk ci weer ba mu jeex te suñu borom jéggalu la say bakkaar fër say ñaar téef xamal ne ku texee di ku sore suñu borom ndax weer wi ci yi nga xam ne boo ko defee suñu borom jéggal lay bari na li nga xam ne boo ko defee suñu borom bari na ku sàggan a sàggan nag boo wari jaar fi ba jàll ci yooyee di jëwee ak dara xamal ne nit ku texee di nga ku sori suñu borom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di yéeg ci minbar comme fii ma taxaw taxaw daal di wax amin amin amin ñoo ko xanaa maa ya rasulullah lu ma la wax amin ci kaw minbar bi nii rek mu ne Jibril alayhi salaam dafa dikk ci man ne ma yaa Muhammad raxiba an femriin daxala alayhi sama ramadan suma xaraja wala mu yaxfir lahu fa adxalahu llahu naar fa adxalahu lahu yon bi saay saam jibril daa dikk fekk ko ci da ko tax ci moom ne ko nit koo xam ne si daal weeru koor dugg na ci yow fekk la fi ba génn te sunu borom jégalu la ñu ko texeeree ngoog koo xam ne yàlla tàbbal na ko sawara te soril soril na ko bopp kon nag weer la woo xam ne daan na ko wax daan na ko waxal amin loo tax yoon def amin amin amin képp koo xam ne xoole nga ba weeru koor jaar ba jàll te suur boom jégal la say bakkaar yàlla tàbbal na la sawara te sori na la mbokk jullit yi weer nag weer bii weeru jekk la weeru def lu rafet la weeru def lu baax la weeru yërmande la weeru dimbalante la waaye weeru sarax la waaye weeru bind asaka la yëpp fo fonk na kon nag da di dimbale ñu ñàkk ji di yërëm ndaw yi ak di néew doole ji di dimbale ñu ci mboolem ñi nga xam ni ñu wañ sa wañ sa leen ñu ñu ñu néew doole ñi tey dimbalee ñu ci dox ndox lu am solo la mooy ndax yéen du képp koo xam ne dogal nga nit nit ka nga doxal yool bu xam ne ba mu am da nga ko am ci ndog loolu te ko yàqal ci yoolam ba mu dara képp koo xam ne fekk nga jox ko lu mu dogoo yàlla daan la jox lu toll ne yool bu toll ne moom moom nga dogu te moom muy dogu rek yool ba mu amoon du ca wàññi dara kon nag nan fonk baax di dimbali nit ñu ñu ñu amul ndog ci ñuy ndog ndax loolu ko dana tax malaaka yi di la ñaanal di la ñaanal ngir yërmande di la ñaanal ak njëkkal képp koo xam ne yaa ngi jox woor lu mu dawul yoon bi sama sama an inna saa'ima tusalli alayhi almalaika isa akala hinduhu xata yafraxu yoon bi nee képp koo xam ne boo nga nit jox ko ndaw fii ma ngay lekk di jëfandiku fii muy napp malaaka yi day julli ci yow di la ñaan kon nag dimbale ko néew doole ci ndogu lu am solo mbokk yi nañu fonk ñaan bu baax ci weer yi weeru ñaan la weer boo ne suñu borom na ci nangu ñaan waaye weer weer bi yërmande la weer woo ne mees na cee jege suñu borom la weer woo ne mees na cee am ngërëmu suñu borom ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ñett ñetti ñaan moom suñu borom da ko delloo mukk daxawatu saa'im kuy woor li mu ñaan suñu borom da koy nangul daxawatul maslum ki nga xam ne dañ koo tooñ mu ñaan yàlla ñaan googu suñu borom da ko delloo mukk daxawatul musaafir nit nga xam ne tukki tukki boo xam ne waxuma tukki tukki boo xam ne da ngay tukki bakkan rek nag kii xam ne tukki ngir yàlla coono boobee muy sonn bu ñaanee suma borom dana ko nangul ñaan boobee wax ci bu baax ci yi weer tuub la di nangu ak tuub la nan fexe ba weer yi doon tàmbali sunu sunu sunu àdduna su bees liñ wees woon lépp ñu fas ko far ci tàmbali dund bu bees ci ay jaamu yàlla ci def lu baax ci def wi aw yëw dañ xam nag wattaay bi mu ne sanni kaman laa san baloo képp koo xam ne yaa ngi tuub say bakkaar yaa ko amut say ko amut ay bakkaar yéen yam kon naan fonk baax jéggalu suñu borom rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ولا لا تزغ قلوبنا a إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن حياتنا كلها waaxiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin boo leen bëggee am mbooleem video yi bàyyeekoo fii ci Istikhama fii da ngeen di bës fu ñu bind abone bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo